Aïssata Deme mu mel ni jafe-jafe dafa am ci mbuurkaat ba nga xam ne président Bassirou Diomaye euh, Diakhar fay jël décision ne nañu nëggandiku lépp loo xam ne dafa jëm ci ay terrain wala ci liggéey ci mbuurkaat ba mu leer mu mel ni yéen am ngeen ay jafe-jafe laata sax 2012 ñu bëggoon nga ñëwaat naka nga def ba dugg mbuurkaat. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jaama man mbuurkaat bi ma fi ñëwee jënd terrain maa ngi fi ñëw en 2011. laa fi jënd terrain ki ma jaay terrain mi ngi tudd Moussa Fall mi ngi dëkk fii ci Thiès donc bi may jaay terrain yi cinq terrain laa fi jënd cinq terrain yi ma fi jënd yi ñetti terrain yi maa moom yeneen ñaari terrain yi sama mag bu jigéen laa ko jëndal mi ngi nekk euh, France donc euh, bi ma ko jëndalee terrain yi madam Thiam bi ma ko jëndalee terrain ak man terrain yi ma jëndee dañ ko jëndoon pour ñun ñu dëkk ci ak sunu njaboot dëkk si mais Sénégal nag dafa am litige suuf ba nga xam ni kenn mënu wax nu mu mel ndax ñun ci diaspora bi lañ nekk diaspora bi ñu nekk bi dañ fi nekk di liggéey di daan sunu doole dañu bëgg a dellu si sunu réew mais xañ nañ ñu nu ñuy dellu see sunu réew ndax 2011 ba léegi ku fi jënd sa terrain mënoo fexe ba jot sa terrain ñu jël sa terrain di ci def ni nga xam ne naka su noonu ndax keroog euh, le président basiru jaxaar Diomaye Faye bi mu fi ñëwee ñun ñëpp gis nañu ñëwam bi fii Thiès te biñ ko gisee mu ñëw fi itam dañ ci kontaan ndax lan moo tax ñu kontaan ci injustice bi am ci suuf si fii Mbour 4 ñun dañu yaakaaroon ne bu ñëwee day taxaw mu régler problème bi ak nu mu gën a gaawee parce que man cinq terrain yi ma fi yor am naa sama beau frère sama jëkkëru rakk quatre seize terrain mi ngi ko fi yor sama rakku pap yor na fi ay terrain sama mag bu jigéen mi ngi France Arwa yor na fi terrain dégg nga Ulay Ñang yor na fi terrain kon bu fekkente ni ñëpp ñëw nañu sama bàjjan sata Aan ñëpp yor nañ fi ay terrain fii lañ ñu jaay terrain yi léegi nag Sénégal ay affaire jaay doole moo fi nekk jaay doole bi fi nekk bi nag fekk ñun dañu nekk si jaspora bi ñu bëgg waa jaspora dellu si pour nekk fii ci réew mi liggéey ak li ñuy sonn si bitim réew mais ñoom dañuy jéem a galgal dégg nga dañu jéem a sànni xeer dañu daaneel pour ñu bañ a ñibbi fii si réew mi moo tax nag ñi nga xam ne dañu ëpp doole doole nag yàlla rek moo ko am mais dañu fii dañu jël terrain ñu pàccoo ko seen biir terrain yi ñu pàccoo seen biir nag dañu bëgg état taxaw si nu mu gën a gaawee lijjantil ñu sunuy terrain ñu jot sunuy terrain pour ñu mën a tabax pour ñibbi si Sénégal parce que mënoo nekk 40 ans 45 ans bitim réew nga ñibbi si ngay dem di toltolaan wala sa njaboot di toltolaan yenn ay rafetul te litige terrain suuf dafa bëri ci Sénégal foo tourné ci Sénégal problème am na waaw loolu mooy sunu naqar nag. mu mel ni tey këyit yi nga génne parcelles yi 2011 euh, ba léegi. Mm. mu mel ni ci forêt classée Mbourkat. Mm. donte ni président bi fi nekkoon di Macky Sall 2017 la ne woon dañuy déclassé forêt Mbourkat. Mm. est-ce que tey euh, te gisoon nañu bi ñu déclassé forêt bi. ñu def ay communiqué ne képp ku fa amoon terrain ku fa jëndoon. Hmm. na nga ñëw préfecture ñu régulariser la. Hmm. man euh, samay këyit euh, comme nekkuma fi bitim réew laa nekk joxe woon naa samay kayit pour ñu inscrire ma demoon naa aussi impôt et domaine xam naa fa benn waay bu fa nekkoon jibi ma wax kaka bi ma kaka waxee mu ne ma amoon problème dinañu jéem a xool litige terrain yëpp ñu réglé ko mais boobaak léegi ba ni fi jógee xamatuma kenn sax impôt et domaine ba di fa dem. ndax impôt domaine moom li fa nekk li yàlla rek moo xam mais lu jaxasoo ci réew mi impôt domaine ñoo ko jaxase te jaxase nañu li nga xam ni mënuñu ko lijjanti jaxase nañu li nga xam ni ñun de duñ leen ko baal àddina ak àllaaxira ba ñu toog ci sunu kanamu boroom duñ leen ko baal foog ñu lijjanti loolu ndax ñun du ñu nekk ay jigéen nekk si àll bi di dóor waar dellu si fii ñu jël sunuy alal di ka luubal loolu mënul nekk nañu xool li ñuy def li dañuy wax ni ay jullit lañu mais ñu jullit ndax diggante jullit ak moroomam am na lu nit ki war a def am na lu nit ki warun def waaw. alors bu ñuy wax waxu diaspora bi tey wax nga ko sànq yéen ñëpp da ngeen bëgg a ñibbi si. Mm. am ay dëkkuwaay. mu mel mm. ni suuf si jaxasoo bi ci nekk tax na tey euh, diaspora bi ñoom seen bopp ñu jaaxle te yow yaa leen teewal fii parce que wax nga ni sànq am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa bëri ay terrain ñoom it. ban appel parce que man appel bi may lancé bi rek appel bi maa koy lancé au président de la république du Sénégal monsieur Bassirou Diakhar Diomaye Faye. moom dafa ni jubal jubanti jub jubal jubanti la wax jub jubal jubanti bi muy wax bi nag dañu bëgg mu commencé que ci litige suuf si nekk fii ci senegal ñun loolu la ñu bëgg ndax diaspora ba lañ fa nekk du lu ñu neex de diaspora neexatun tey ku ne diaspora neex na rek dafa am loo ci kii bu ñu fa nekkee ñu ngi jàpp suñuy doom di dóor ñu ngi jàpp ñii ñu ngi rey ñii ñu ngi tëj lu nekk ñu ngi koy def te amul benn état bu taxaw yëkkati kaat doom wax ci xale yi ñuy jàpp di rey bitim réew wax ci nit ñi ñuy jàpp di leen néewal doole bitim réew état Sénégal mësuñ ci taxaw benn yoon ñu wax sunu mag yi fa nekkoon ni problème yi ñu am it état mësu ci taxaw ñu wax ñun ñooy jóg ñooy daw ñooy jóg ñooy daanu lépp ñun ñoo koy def mais gisuñu kenn ku ñu ci fekk si mais am na ñenn ñi nga xam ne sax dama leen di jëlale ndax moom président Macky Sall bi mu fi nekkee li mu mënoon li def nag mais ay ministre am ak ñu topp ci ay ministre am nekkaluñu fi woon kenn seen bopp lañ fi nekkaloon kooku man ay Aïssata dem man maa ko wax te ku ci am lu muy wax na ñëw mu wax ak man. parce que rapport bi génn fii pàccoo bi ci suuf si dafa jéggi dayoo ñu euh, jiiñ ko régime mais bu ñu leen ko jiiñee dafa fekk ñu takk ndax nit ki boo takkulee ci dara kenn du la ci waxal dara ñun nag sunuy terrain fii ñi ci lim ñi ñëpp nag laa wax ñoom ñëpp xam nañ ma xam nañu man maay kan. may dund wala ma dee sunuy terrain buñ ko jëlee du leen jikk du leen jikk affaire suuf yi ñuy xëccooy gis nga nit ki boo deewee juróom-ñaari mètre percale dong ngay yóbbaale ak un cinquante bi ñu lay gasal mais nañu bàyyi lii ñuy def ñu nekk bitim réew dañoo sonn ñu nekk bitim réew dañu sonn suuf yi ñuy jënd fii ñoom ñuy ñëw ñoo ñu ëpp doole rek ndax ci état la ñu nekk ñuy jël di paacoo loolu warul nekk. loolu waru nekk nañu yërëm nit ñi ndax bëgg nañu ñibbisi sunu réew mais amuñu nu ñu ñibbisee ndax ñoom ñoo jël comme ñoom ay borom barke lañu. kon daal yéen défi bi ngeen lancé Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mooy ñu régulariser suuf si ba diaspora bi nga xam ne dañoo jënd ku nekk mën a jot sa suuf mën a tabax dëkk ñun daal liñ leen di wax ñoom dañ ne Sénégal dana neex Sénégal bu fekkente ne day neex nag ci litige suuf si lay commencé ndax du ñu nekk ay jigéen nekk si àll bi di liggéey. ay paa yu màggat nekk si àll bi di liggéey bu ñu retraité ñu bëgg a ñëw tabax pour nekk fii ak seen njaboot ndax réew boo mënta nekk rek yaakaar naa sa réew moo ko dàq ndax boo nekkee ci réewu jàmbur jàmbur nga fa rek mais boo nekkee ci sa bitim réew loo mënta am ci suba ba ngoon jot da ngay xam ne sa réew nga nekk waaw. voilà soxna Aïssata Déme eden ɗo henna Hmm. elle caɗele ene heewi so ƴowama e banggal leydi en jiino président bassirou diomaye faye ari ha ɗo wi kala ko fate mburkat yo yowe ha lijjite te lijjita rapport jaltuɗo hen o yiya ko tan yimɓe pecci koye mumen gacci woɗɓe ɗum noon hannde holko woni hen haalama uh, ɗum noon assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on moni foof inde muɗum e yettode muɗum min mbiyetemi ko aissata déme gonmi ko caggal leydi gonmi ko wuuro ngo ganduɗa ene wiye mantela joli donc euh, hannde addimi ɗo en jii président bassirou diahar jomay faye o arino ɗo nde o nde par que o nanino probléme leydi ene watno ɗo ɗo mburkat ɗo e thiés probléme leydi wannode ɗo ndi noon minen foye min jogui ɗo terrain ji ɗi min jogui ɗo ɗi ɓurɓe min doole koko mbaɗi coumba am daye coumba amun daye ɓe pecce koye maɓe puɗɗortomi anani ko les ministre wonnoɓe e gouvernement président makkisal ko ɓen puɗɗortomi par que ko ɓen tan inɗe mumen jaltiɗo kamɓe ɓe goƴaka miskineɓe ɓe koɓe jogui ko ɗum yonani ɓe ɓe ƴewata koko miskineɓe jogui ko eɓe kepta ko miskineɓe jogui ko donc wona kamɓe ballata miskineɓe ɓe wonɓe caggal leydi ene liggoɓe kamɓe eɓe ganda o no wayi eɓe gara toon jamma e ñalawma donc ɓe jii yimɓe ɓe no darori ɓe jii yimɓe ɓe no tampiri gummotoɗo 5 heures du matin dawa liggey natta galle muɗum 8 heures du soir tawa ko debbo oɗon gandi ɗum ɗon ene donc minen hay hunde ala komin jiiɗi hay hunde ala komin cohli so wona le président de la république du sénégal monsieur bassirou diahar jomay fay o arino ɗo visite nde o ari ɗo visite nde o yi yimɓe ɓe no ɓe mbaɗi hokkaɓe hen terreji ɓe foof koye gouvernement he gonno minen terreji amen ko 2011 min codno 2011 tawa président jooɗaki nde ɓe gari nde soɓe ndewino ɗoɓe poti rewde ɗo ɓe mbaɗani sénégal ko kamɓe jeeyi te yimɓe koko gotannoɓe balliɓe jogue maɓe confiance confiance mo yimɓe joguino e maɓɓe woɓe guitti confiance o ha laaɓi ha wi ceer par ce que minen komin yimɓe sodɓe ɗo ɓe fof ko miskineɓe kala mo jiiɗa hen ko ɓesɗo kadi kala ɗanniɗo fof yiɗi ko so arti so jaaƴima taw koye galle muɗum ko jeyani hoore muɗum jaaƴoto taw wona location wonata ɓe lebti min noon ɓe lori min min jarlaki min jafaki tuggi tan dow ha heeɓi less gonnoɗo gonnoɗo député anani koɗɗo ɗo e thies moɓe mbiyata kirikou o kamɓe en farba gomen kamɓe tuuya allah mbimi yooɓe jaltin terrain ji ɗiɗo koɓe mbiya kamɓe ƴetti kamɓe pecci ko yooɓe kaal holno yaare e maali gay wiyete mi anda holno eyyi e abdou gueye yooɓe jaltin terrain ɗi terrain ɗi c' est anani wonɓe l'immigration guila hay goto anda ɓen coodi terrain ji mumen gara jiiɗa maade kamɓe ɓe jonetake par ce que soɓe joneteno hande oɗo darata ko hande wiya ene ƴetta sawru ene fawa e maɓɓe par ɓe ndewnani laawol soɓe ndewnino laawol toɓe daari fof ɓe darna daade maɓɓe no poto lampani neɗɗo wiyataɓe daande kono noon ko affaire dowrumaji bakkel fof ene affaire maɓɓe hay batte ala komin cohli so wona terrain ji amen booru seen mhm. xamante ne demoon nañ ba ne la mhm. wu Daaru Bayre. ñu mhm. sëñ euh, euh, am na ay jiixi jaaxa wala euh, mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen man Aysata laa tudd Aysata Dem donc fii dama fi jëndoon ay terrain depuis 2008 laa fi jëndoon ay terrain. bi ma fi jënd terrain nag maa ngi fi jënd ak sama ñaari xarit samay dëkkandoo ñoo nekkandoo France bi ma fii jënd terrain yi man jënd naa fi ñaar ñaari terrain yi ma fi jënd sama xarit yi ku nekk jënd na fi ñaar mais am na kenn ki nga xam ne Kumba Dabel Sarr la tudd waa Ndulumaaja Dembe la Mantes-la-Jolie lañ nekkoon xaar na ay terrain am ndeysaan ba génn àddina jotuñ ci ay terrain am mais njabootam ñi ngi foofu terrain yi dañu soxla sunuy terrain te amoon na ci mois de mais bi passé ñëwoon naa fi bi ma fi ñëwee ma dem impôt domaine te ñun sunuy kayit impôt domaine dañ ko fay ba pare ba ñu jox ñu sunuy ticket bleu yeeg yëpp ñu dindi ka ñu jox ñu fay nañu sunuy terrain mi ngi ci seen Iran côté seen Iran bi la nekk terrain basket ma nga fa poste de santé mi ngi foofu 2008 ba léegi ñu ni ñu waa impôt domaine ñu ni ñu sëriñu Baay Faal bi moo ne kenn bu mu fa ay terrain te man biñ ma ko waxee ndax man déet laay bañ a dégg bi ma déggee ñu ne sëriñu Baay Faal bi dama jóg ma ànd ak sama mag ak sama rakk bu jigéen ak sama doom ñu dem foofu bi ñu demee nag sëriñ bi gàttanduñu teruñu ni ñu bisimilla ñu toog ñu waxtaan ak moom muy ku am yitte ku bëgg doomu aadama dégg nga teral ñu mënuñu waat naka si yàlla bu doon moom terrain yi foofu la nekk nee na jigéen lañu xam na ne jigéen ñi dañoo sonn te ay jaboot lañu nee na moom du jël sunu alal sunu alal nag nañ ko réclamer impôt domaine ñoom ñi taxawoon di dagga terrain yi te ñun dañoo jënd ñu jaay ñu sunuy terrain defaral ñu sunuy étiquette 2008 ba léegi mënuñu fexe ba jot sunuy terrain léegi nag dañu bëgg a laaj ci ban réew la ñu nekk ndax réew mi kat ay litige yu terrain rek moo fi nekk litige yu terrain. boo demee ba jëndal ay nit yaa ngi bitim réew bu ñu jotulee seen terrain dañuy wax xëy na da nga leen triandé wala dafa am leneen lu ci am fekk loolu yëpp amu ci fekk ñi nekk fii ñi ñoom ñooy trian yi ñoom ñoo gàddu àq ndax bu ñu fekkentee ne ñu ñun ñu nekk bitim réew ñun ñu yërëm suñu bopp sunu alal nag duñ ko bàyyee noonu dem naa impôt domaine encore bi ma demee impôt domaine ma dindi samay kayit ma wone ka biñ ko gisee dañ ne ma way terrain c'est vrai terrain yi am na mais depuis gouvernement Ablaye Wade dafa am lu ñu waxoon ak sëriñ bi defuñu ko moo tax sëriñ bi tëye terrain yi ma ne ban réew la ñu nekk parce que ñun bu ñu dindee terrain bu ñu jëlee ay terrain ñu jaay ñu impôt domaine état la yaakaar naa ni état du luubal sunuy terrain ñun nag liñ ci bëgg dañu bëgg état taxaw ci ñu jox ñu sunuy terrain soxlawuñu dara lu dul fi ñu jaayoon terrain yi ñu jox ñu ko. ndax tey jii boo fa soxlaa terrain tey jii mënoo ko am sunuy terrain ñu ngeeg numéro yi lotissement yi def nañ ko lépp def nañ ko mënuñu fexe nag ba ñu ni sunuy terrain mi ngi nii mën na nag waa impôt domaine ñoo ko jaay li ñu tàmm def dañ ko tàmm def waaw dañu tàmm def di jël ay terrain jàmbur di ko jaay di luubal alalu jàmbur loolu la ñu tàmm comme loolu lañu ñu tàmm nag moo tax dañ naan ñun comme bitim réew la ñu nekk suñu alal moo gën a yomb lekk ka alal ñu toog fii senegal nañu def noonu. suuf bu bëri bu ñu xool Colobane mm. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne dafa répété wu. Mm. mu mel ni président Diomaye Faye jël na ay kàddu ci wàllu réforme foncière mu mel ni yéen tey li ngeen xaar mooy état appliquer la loi dans ñun lenn lañuy xaar. li ñuy xaar li président na xam ne dafa yor ay jigéen mu yor waajur bu jigéen mu xam ne jigéen ñi tey jii ñoom ñoo nekk si monde bi ñoo nekk si diaspora bi ñoom ñooy sonn parce que ñun amul dara lu ñuy dawal amul dara lu ñuy sonal lu dul njaboot amul dara man terrain yi ma fi jëndee ci samay turu doom laa ko def samay turu doom laa def terrain yi koo gis mu jënd rek njaboot moo tax muy sonn mais bu dul njaboot duñu sonn mais ñu ngi ñaan le président de la république nee na moom jub jubal jubbanti la wax ñu ngi koy xaar ci loolu du ñu dellu gannaaw nag ndax sunu ñaq la ka ko fenuñu ko dañu taxaw liggéey jënd sunuy terrain 2008 de laa leen wax monsieur le président en 2008 ñaata at nga amoon en 2008. dégg nga ñii nekk fii tey jii ak euh, kii ñoom ma daaro lay ak xaw ma ñan ak ñan en pagaille ñu ngi fi ñoom daal ñoo fi nekk di troubler nit ñi di jaxase nit ñi di jël seen alal di lekk waa impôt domaine géologue yi itam ñu ngi fi amuñu dara lu ñu def lu dul di dagg kër yi di ko jaayaat ñeneen waaw ñun ñu ngi yor sunuy kayit impôt domaine fay nañ ko ba pare depuis 2008 sunuy terrain la ñu soxla Kumba Dabbel am na si ñaari terrain Ramata Wadd am na si ñaari terrain man mii di wax ak yéen am naa si ñaari terrain kon nag ngeen jàppale ñu ngir yàlla ak yonent bi sonn nañu retraite léegi mu ñëw diaspora bi neexatul dañoo bëgg a dellu si sunu réew am nañu sunu pétrole am nañu sunu gaz même ñun buñ ci bénéficier wun xëy na euh, dund bi dina yomb ba ñu mën a toog fi mu gënal ñu diaspora bi caɗele yaɗon enkoyde men jogɗon assalamu aleykum bandiraɓe donc euh, mbiyetemi ko aissata dem kadi ko mantela joli kadi kodmi koye diaspora he min goni donc emin calmina yimɓeɓe foof terrain ji ɗiɗo ɗi kalanmi ɗo ɗi ko guila 2008 min coodi terrain ji min jooɓi kayitaji amen impôt domaine emin jogui kayitaji amen impôt domaine impôt domaine kam normalement sa yooɓi toon kayitaji ma a yooɓi ko poɗɗa yobde ko eɓe poti ittude terrain ma ɓe mbima terrain ma nani ɓe kollino min terrain ji ɗi gila nden ha ɗo gonɗen ɗo 2008 min garti ɗo pour yidde wadde hunde e terrain ji ɗi eɓe gaddana men haala niɓɓitka somin noddi géologue géologue wiyamin jeehe to impôt e e géométre o somin noddimo o wiyamin jeehe impôt e domaine somin jeehi impôt e domaine ɓe mbiyamin ceerno baye faalo guilay e temps ablaye wadda 2008 wonno kamɓe tañno terreji ɗi joni ɓe dokkano Baye Falo gueɗal muɗum so Allah noon ceerno Baye Falo minen min gari ha ɗo min kam hunde foof min haade mi yarata hen noon mami yaaha ha mi laaɓe jaami to ceerno o jaɓɓi min o bismi min o wi ay ɓe ɓe kalanani on gonga guila 2008 on jooɓi terrain ji moon impôt domaine fewni kamɓe gandi toɓe mbaɗi terrain ji moɗon yooɓe ƴeew yaltinde terrain ji ɓe totton par ce que ɗum ɗo hakke oɗon noon min jarlaki min jafaki coumba dabbel sar yo allah ɓuɓanmo omo sodno hen terrain ɗiɗi ramata wadde ene soodi hen terrain ɗiɗi min kaalowo ɗo mbaɗa soodi hen terrain ɗiɗi kayitaji am nani kayitaji impôt domaine foof imin jogui eyyi min jeehino impôt domaine ɗo min kam mi tawi toon koye moment djibi si wonno kollumomi o wi kam terrain ɗi état ma réglu ɗum guila nden ha président Macky Sall wonno ɗo président Macky Sall yeehi joni ko séréer ñamowo gurɓano ko on woni ɗo joni noon emin ñaagui séréer o kam so wonko wawi hen yo wallu min o anda kam min tampi kadi yooɓe gandu kadi diaspora natti welde min jiiɗi ko artude leydi amen min jooɗo par que ko dañɗa e ko donkuɗa foof kam sa heeɓi kalis ma seeɗa ko dañɗa foof ma ƴeew ƴeew no guurduɗa kono so tawi a mawni a natti wawde yobde loyer charge uji ene sa woni toon so ɓooyi tan ko koyeeram arantuma neɗɗo noon jooɗo e leydi muɗum ko dañi fof wuuro e leydi mum ɓuri wuulde caggal leydi ɗum noon merci on jaarama yooɓe mballu min saabu allah e nelaɗo muɗum ɓe lijjitana min terrain ji amen